production ak service jël ñi nga xamante ni tey jii ñooy maçon yi ak euh, euh, restauratrice yi boole leen ci benn benn secteur mooy lan euh, boole leen ci secteur production mhm. donc comment nga nan nga mën a jëlee ciment ak ceeb di leen boole ànduñu donc ñun nag on avait jugé nécessaire avec le président Ousmane Sonko mi nga xamante ni dafa jël li nga xamante ni mosul am dans l'histoire politique du Sénégal mooy les artisans mu jël leen jox leen gëdd bi ñu war parce que euh, amul benn parti politique bu mos a jël un artisan def ko un def ko mu nekk jiit wala def ko mu nekk mu dara ci ci parti bi. Mhm. moom nag mu jël un artisan ki nga xam ne mooy Babacar Balor def ko mu nekk coordonnateur mouvement national des artisans mu ne yéen yi wax leen seeni problème ba pare wax li koy réglé donc loolu foog naa mooy développement. ngeen wax seen problème wax li koy réglé ñu bëri jël ko ci boole ko ci bilan bi boole ko ci programme bi nga xamante ni moom lañ nar a déroulé en en en en en à partir mu nekk benn avancée bu extraordinaire boo xamante ni kenn xamul kenn xamul fu mu mën a yem loolu moo lay wan le président Ousmane Sonko c'est un visionnaire loolu kenn mësu ko xalaat un artisan ñu jël ko responsabiliser ko dans un pays kenn mësu ko xalaat te pourtant on a notre mot à dire. e pourtant on est des intellectuels et pourtant on est des des des dañoo mën li def ba pare xam suñu bopp donc euh, ñu ko ciy remercier le président Ousmane Sonko. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla mu génne ko fu mu nekk jël réew mi en 2024. alors li ma xam ni li nga xam ni <clears throat> wax nga ko ci wàllu artisanat loolu leer na sama bopp mais doyuma. Mm-hmm. tey jii nii quotidien wu artisan nan lay demee artisan mooy bijoutier. mën mm-hmm. nañ ci boole menuisier. mën nañ ci boole ébénisterie ébéniste eh, mën na ci boole mécanicien. Mm-hmm. mën dafa yaatu. dafa est-ce que mën nga ma si jox kenn ci ku moo xam yow wala kenn ku la jege nga wax ma journée am nan lay demee. journée am comme tout le monde euh, boo xëyee jéem a lijjanti 3000 francs yónnee ko def kër ga. 3000 francs waaw ci jamono bi en attendant. ñooñu waa kër ga lekk mais 3000 mënul jënd dara jamono bi. mais tu n'as pas le choix. gobar jaasi togg añ tugg ci bi ci reer sénégalais noonu lañ def. te ñuy subir lu grave grave mooy lan est-ce que tu sais pas Assane man damay laaj ma ne Sénégal est-ce que am na borom xam-xam. Mhm. parce que dafa am benn bu gën a bu gën a yokk immigration clandestine. Mhm. mooy mooy le phénomène des déguerpissements. ah. ak dama lay dama lay dama lay indil histoire. Mhm. immigration clandestine. kañ la gën a fës. c'était en 2006, 2007, 2008, mm -hmm. au temps de Wad. Mm -hmm. Et au temps où le, le, président Macky Sall était son premier ministre et son directeur de campagne. Ouais. Autant il y avait un gouverneur qui s'appelait Ndaran Sambou, qui était en train de tout ravager à Dakar. Nous avons dit 2005, le, le gouverneur Dakar, euh, Ndaran Sambou, ravagé Dakar. 2006, il a commencé à faire des xoolal li xew un mois bi mhm. ni mu tegloo ni mu tegloo tu sais tu sais dû à quoi mhm. des cent des de jeunes mhm. yu nekkoon fii ci ancien piste bi ñu dégër pir leen comme ça sans droit ni seetlu phénomène bu dégër pisement bu mag amee rek immigration bi yokk agression bi yokk te loolu doo toog benn expert di la ko wax doo toog benn nit di la ko wax mais ñun artisans yi koy dund. au mhm. quotidien ñun ñoo ko mën a wax te on ne donne pas la parole. Mhm. senegal tey jii artisans yi am nañ fi benn njëriñ boo xamante ni. Mhm. kenn xamul nu mu tol parce que sénégalais buy liggéey bu nekk rek am na mu ngi dundal minimum. cinq sénégalais. dëgg la am secteur boo xam ne am na trois millions de personnes kon ñooñu ñaata la ñu war a dundal te foo leen fekk dëggatul loolu foo leen fekk yëkkati leen. foo leen fekk toroxal la comme si on n'est pas des sénégalais mais ñi jël tayal seen bakkan tey ci ci ci gaal bi mhm. bëgg nañ dund mais c'est parce que dañu amatul benn yaakaar si seen réew mhm. imaginel tey nga yoroon garage ancien piste di këtt këtti jënd sa benn appareil diagnostic mhm. jënd say affaire teg di liggéey état ñëw jël suuf bi jox ko benn promoteur promoteur bi ne da lay jël délocaliser la yóbbu la Sébikotane un terrain qui est impraticable ñu jël promoteur bi jox ko huit hectares. Mhm. mu dëgër pir des centaines de milliers de jeunes amul après moom mu jël ko jëriñoo ko moom mais c' est grave dans ce pays pas ça c' est grave ce qui se passe dans ce pays. et vous en dites quoi yéen en tant qu'artisan lan mais lu ñu ci mën lu yooxu loolu moo tax nag ñu dugg en politique paasan parce que dañ doon toog ci grand place yi di ko yuuxu mhm. dañ doon toog di ko métti dañ doon toog di ko naqarlu suñu biir kër yi mais à un moment donné ce n'est pas ça la solution. Mhm. solution bi du toog di ko naqarlu. solution bi du toog di di di di mer wala ngay saaga. solution bi mooy da ngay jóg dem défi la politique. Mhm. essayer de conquérir le pouvoir pour changer la donne. c'est ce que nous nous, nous sommes en train de faire actuellement. Et, mais le problème, c'est que si je prends le cas de votre parti, euh, le PASTEF, que, que, que, par exemple, moi, par mes bracelets, mm-hmm. il mm -hmm. y en a même qui me disent, des confrères qui me disent, tu ne dois pas le faire. Mm -hmm. euh, moi, je dis, je ne suis pas d'accord sur l'injustice au Sénégal. Si je suis en tant que brassard rouge, ou le rouge. Moi, je dis, j'aime pas trop me mettre en rouge, mm-hmm. parce que pour plusieurs raisons. Par mm-hmm. contre, je vais mettre ce bracelet-là, où il y a du vert et du blanc, pour dire non à cette injustice-là. Maintenant, c'est personnel. mais dès lors que yéen votre parti dissoudre nañ ko. vous hmm. n'avez plus de moyens. si on a les moyens. parce que on a déjà conquis les cœurs. te ñoom dañoo tas passif ci saayir. Hmm. yàlla tas APR ci baatin. dëgg la parce que ñoom ana Antoine Dan mi nga tasoon tey. Hmm. kenn gisatu ko. te le président Macky Sall d'ici quelques mois. incha allah kenn dootu ko gis. incha kenn dootu ko dégg Sénégal. ñu tas passif ci saayir. yàlla tas APR ci baatin. ana Boun Abdallah Dionne tey demul mhm. ana Aly Ngouille demul ana Abdoulaye Daouda Diallo démissionné wul mhm. ana Mimi Touré décidé démissionné wul mhm. ku fo des transhumant yi transhumant yi dañoo fa des waa PDS yi ñoom ma sama maam Babacar Gueye président <laughs> Babacar Gueye de Kaffrine ak ñoom Ablaye Sow ñoo des ñi nga xam ne 2012 quand quand quand les apéristes de Sousse se battaient il était là pour di mmh. soutenir la troisième candidature de Wade tey ñoom ñooy défendre le président Macky Sall tey ñoom lay défendre le bilan de Macky Sall moo lay war na ñoom seen pexe jeex na mmh. mais nag il s'accroche il s'accroche ñu ngi tenir ñu ngi tenir mais c'est fini pour eux ce ay question heure la rek ay question de mois incha allah rabi ñu jógee fi abal ñu ñu jël Sénégal liggéey ko delloo Sénégal Sénégalais yi ci wàllu ci wàllu wa wàllu artisanat toujours mhm. am na am na noo xam ni noon noonu la ñu bëgg a gisee mhm. moo di ne euh, en terme de de de recette moo mhm. waxee recette bu liggéey bi jaaree yoon dëgg ci journée lan la artisan mën a apporter Sénégal artisan amul lu mën a am lu mënta am ci au moins du moins amul lu mënta am ci liggéeyam parce que xam-xamam la mais malheureusement l'État du Sénégal du ci profité vous savez comment. comment parce que dañoo teg secteur informel. ba maanaam ñoo xam ni ils sont pas organisés. ils ne pas organisés te artisanat amul ñu ko gën amul lu ko gën organisé. Mm-hmm. tey boo demee les les grandes se c' est des artisans. oui Dolce Gabbana c' est des artisans. Gucci c' des artisans. Euh, <laughs> defar ko oto des artisans. Mm-hmm. donc mais pourquoi ñoom ñu valoriser leen seen réew mhm. bañ dem ba ba booster économie seen réew yi ñun ñu teg ñu ci informel ba mhm. état mënu cee profiter vous savez man j'avais écrit un projet boo xam ne dama ci inspiré wu ci mhm. model économique boo xamante ni danañ ko def sans pour temps ñu déguerpir oui te état dana ci gagné euh, jël cinq hectares dama ko jël exemple cinq hectares fii ci VDN prolongé bi. def ko ay hangar. Mhm. def ko ay garage def fa police def fa gendarmerie def fa sapeur pompier def fa poste de santé ne mécaniciens yi. les artisans ku ci bëgg bokk ci ku bëgg dugg ci garage boobu noonu da ngay dem APEX. Mhm. nga uti registre de commerce ak ñi oui da ngay dem impôt et demee nga déclaré mhm. boo ñëwee cinq cent mille francs formalisé wu ko formalisé wu cent mille francs ngay fay pour ñu jox la sa garage. boo fayee cent mille francs jox la sa garage chaque mois nga fay cinquante mille. Mhm. imagine nga ñu parven parvenir woon a jël mille artisans def loolu loolu lépp fay la loolu ku nekk cent mille francs chaque mois ku nekk fay cinquante mille. oui mille kese l'état va se retrouver avec des millions te bu ñu leen ko joxoon tey ñu def ko. l'État est en train de perdre de l'argent mhm. parce que la c'est un secteur qui est laissé en rade c'est un secteur boo xamante ni dañoo yaakaar ne peut-être générewul xaalis mhm. alors que c'est de l'argent qui court à flot man sama entreprise mais loolu est-ce que yéen yow wala ñu mel ni yow dem ngeen au-delà de tout au-delà du partisanisme au-delà du fait que Pastef nga bokk wala fi nga bokk dem ngeen toog ci la la tutelle ministère bi en personne ne ko sëñ bi lii lañ lay proposer dañ naan la da ngay politique dañ lay écarté bu ngeen ñëwee nekk en masse dañ naan Samuel mi il est bon dañuy koy. écarté de facto duñ la déglu. duñ la déglu dañ lay écarté jël ñi nga xamante ni peut-être dañoo am complexe gouverneur wala dañoo am complexe ministre bi ñooñu la ñuy ñooñu la ñuy euh, accueillir ñooñu la ñuy waxal ñooñu luñ bëgg a def si ñooñu lañ koy jaarale parce que ñun <laughs> defuñu dina jàppuñu am nañ jaar-jaar am nañ xam-xam. Mhm. donc euh, am na am na foo xamante ni kenn mënuñu ñu fa jaar. kenn mënuñu corrompre kenn mënuñu def loolu loo xamante ni tey bëgguñu ko. Mhm. donc ñoom nag loolu mooy seen seen seen seen modus euh, operandi bu ngeen jógee nekk benn group di kaas benn affaire rek ñu xool ci kenn seppi ko mu ñëw contrecarrer leen après affaire bi tas. c'est ça dañuy jóg di xaa xeex di kaas bay bëgg a dee mais après par la suite du am benn aboutissement parce que lan état bi du jéem a solution day jéem a xool nu nga ko tasee. ça c'est un problème énorme c'est ça notre malheur tey jii dama ne leen tey Pa Assane yow yaa ngi fii yoof mm-hmm. nga wàcc bëgg a taal sa oto oto bi mm-hmm. tàkkuñu ñu mm-hmm. ne la mécanicien yëpp ñu ngi jam ñaajo oui nga ne léegi comment faire pour réparer sama oto ñu ne la noo da ngay woo benn mécanicien mu ñëw ak benn auto euh, dépanneuse tu vas payer jël si oto bi jël si oto bi tu vas payer soixante quinze mille ci mu yóbbu ko jam ñaajo alors ko sa oto alternateur bi moo chargé wul batterie bi wàcc. donc tu payes dix fois plus que li nga soxla ko. déggoo li ma la wax panne balay depuis dix mille francs moo lay dépanné te yow da nga def soixante quinze mille. ba pare yokk soo ko yeggee ci garage alors soo yeggee ci garage ba euh, euh, euh, ñu soog a diagnostiqué panne bi soog laa facturé. mais qu'est-ce qui empêche tey wala Dakar dafa amatul espace bu ñu war a mën a def atelier. mais espace yëpp ñoom ñu ngi koy jël actuellement nii ñu ngi profité di dégg pour lu ñu ñu mën ñu ngi koy ñu ngi koy def pour jël espace juif ci des des yëpp balaa ñoo dem ñu ne leen solution bi yomb na il faut des garages témoins mhm. comment faire des garages témoins lan mooy lan mooy garage témoin garage témoin mooy lan yow tey boo feebaree mhm. ci sa kër mhm. doo jékki-jékki dem hôpital principal da ngay dem ci poste de santé bi <laughs> centre médical ah yow boo demee poste de santé bi da nga koy fekk lan infirmière wala infirmier infirmier bi xool la ah kii kat foog mu dem yóbbu ko ci ci euh, euh, ci hôpital bi nga dem ci hôpital niveau un boo yeggee médecin général si bi xool la ne ah kii kat pathologie am euh, euh, foog mu am médecin boo xamante ni tey spécialiste mhm. mu jël la yóbbu la référé la ci spécialiste boobu donc ñun ñu ne dans le secteur automobile noonu la war a demee mhm. tey bu fekkee ne euh, dafa am ay gars parce que am na ay sites yoo xam ne c'est déjà là mhm. mooy nekkoon ancien piste bi moo nekk fii ci gannaaw miiru aéroport bi moo nekk stade amitié moo nekk Bat Train moo nekk fii stade amitié ñu ne leen da ngeen di jël yooyu ngeen defar ko ba pare. oui ñi mën a nekk ngeen def leen fa. Mhm. yeneen ñi nga xamante ni yàlla may na leen tuuti doole nga xam ne mën nañoo liggéey ay entreprise yu mag mën nañu liggéey état. Mhm. ñooñu ñu yóbbu leen jam ñaajo. Mhm. ñooñu nga xam ne ñoom seen business kenn du ko laal parce que ñooñu am nañ doole boo xamante ni tey am nañ ay ay ay ay yoo xamante ni mën nañoo liggéey ñoom sans ñu yàq dara seen liggéey. parce que amuñ clientèle lu hasard. léegi ñi nga xam ne dañu am clientèle hasard nga fexe bañ nekk fii dans de bonnes conditions mu nekk ay garage témoin nga xam ne Pa Assane bu paane Yoff day mm-hmm. woote stade ñu ñëw dépanne ko au lieu mu fay soixante quinze mille francs dix mille francs wala quinze mille francs lay fay mm-hmm. loolu day sakkanal sa poche sakkanal sama poche sakkanal poche keneen donc ñu leen il faut que mu am des garages témoins donc mais état dañoo gumba taxlu seen yoon newut ci lenn lenn lenn lenn lenn loolu leen wax luy defar ne da ngay politique loolu nag problème la ah. c'est un grand problème loolu problème bu mag a mag a mag a mag ça veut dire que mais loolu <laughs> j'espère que Samuel demee yéen tamit bu ngeen jëlee dëkk bi du ngeen am taxawaay boobu parce que même si demain on dira ñun ñëpp mere nañu waa mere nañu mere nañu waa waa waa APR euh, ba fenn fii ba am nu ñu toll et cetera mais aussi ay nit lañu ay Sénégalais lañu demee mm-hmm. malgré les erreurs qu'ils auront eu à commettre dans ce pays là mm-hmm. mere nañ leen ba fu mer yam mm-hmm. mais il reste des Sénégalais est-ce que demain tamit du ngeen def bedd yéen buñ ko defee yow dooñ ci bàyyi. dëgg la vous savez pourquoi nga takk bracelet bi. tu n'es pas de Pastef. du tout c'est parce que tu es contre l'injustice. exact te leer na ma ni ngay xeexi injustice tey bu soobaa noonu nga koy. wallaahi noonu la ko Pape Alé di xeex. incha allah noonu la ko keneen ak keneen. wallaahi bu na ngeen ñu ci bàyyi. <laughs> donc ñun on n'est pas là pour euh, euh, peut-être man comme man. sama sama sama sama xeex. Mm-hmm. pour changer la donne la. Mm-hmm. pour changer la donne comment changer la donne parce que Ousmane Sonko mi leer na ma ne. kii am nañ ci am naa ci moom yaakaar. Mhm. kii discours bi muy tenir nii bu ko cat jàppul. Mhm. dëmm jàpp ko. Mhm. xelu Macky Sall jàpp ko. bu farloo incha allahu rabu Sénégal dina allah te moom bu fekkee même falu na bëgg a changé. Sénégalais yi ko ci bàyyi. parce que kaay ma wax la leen Pa Assane. Sénégalais yi léegi ñëpp ngi tëdd sango mais ken nelawul. kenn nelawul. ku leen jàppee dof ñu ngi ut garab yu ñu lay faj. benn affaire am na. Hmm. Euh, Samuel. Hmm. Euh, on parle ci ñu ngi ci généralité yi toujours mhm. euh, ci attitude politique et cetera ci entrepreneuriat mhm. par rapport à l'artisanat mais damay des encore ci artisanat bi mhm. yow par exemple lan moo ci sa métier comme man man je ne suis pas un artisan man euh, sama entreprise mi ngi tudd décideur automobile vente et location de voiture laay def ak baa bu la déggee du la sàkkal pexe mënuñ ci man dara je me suis déjà préparé à l'avance vente et location de voiture lay def. Mhm. ak consultance. Mhm. loolu mooy mooy mooy sa sa actif. mooy sama actif. ok mais circonstance moo ma boole artisan yi. maanaam. mooy man dañoo nekk secteur boo xam ne fii ci en face cité Mixa. Mhm. am fa benn terrain. terrain bi c'était dañ ko jox ki ñuy wax Amadou Diaw. oui en 2012 pour mu def fa ISM. campus. waaw bu ISM waay. Diaw bu ISM. Euh, vous savez qu'est-ce qu'ils ont ñu dem ba 2016. Mhm. ñu dugal Avana ñun fañ ñu jox pour ñu def fa suñuy parking ak suñuy garage ñu dugal Avana pour jël foofu. alors que loi bi def ne booy dugal Avana waroo ko dugal foo xamante ni nit ñu occupé occupé nañ ko ba pare. Mhm. bien que arrière terrain la. mais mhm. warul woon dugal Avana boobu noonu. mu dugal Avana bi avec la complicité des gens qui sont là-bas au ministère de l'urbanisme ñu signal ko Avana donc mu ñëw bëgg ñu fa déguerpir. donc euh, bañ ñu yóbboo gendarmerie. ma ñëw toog le gendarme ne ma. dangeen di signé ne da ngeen fay jóg d'ici une semaine. sans mu déglu la sans mu déglu la. sans déglu la ma ne ko lu may signé. mu ne ma da ngeen di signé ma ne ko ñu porté plainte mun na ñëwul. ma ne ko motif la ñu porté plainte mun na ngeen nekk da ngeen di jóg. ma ne ko moom ana liy firnde moom terrain bi. Mhm. mu ne procuration lañ ko defal parce que terrain bi ci turu campus la ne. mais defoon nañ ko procuration procuration bi la leen mën na ko yow waaji nan la mën a dem di jëlee ci procuration bi nga bëgg ñëw si ñoroo ñu ñu dañuy jóg si si si yow les matériels les éléments qu'il faut pour wane ne kii kat moom euh, moom moom lii munoom en tout cas su ngeen ko deful danañ ko def par la mane ma ne gars yi bu kenn signé c'est parti de là oh l'escorte la sama diggante ak artisan yi commencé mu ñu menacé ma téye ma fa euh, tout la journée après par la suite ñu bàyyi ma bañ ma bàyyi ñu ñëw les artisans se sont réunis nañu yow comme yaa taxaw tey def nañ le président. ah c'est comme ça que je me suis retrouvé avec les artisans. ma nekk seen président ñu def collectif euh, des déguerpis de la cité Mixa. donc euh, nekk ci combat boobu noonu. on est allé voir Guy Marius Sagna. Mm -hmm. il nous a beaucoup aidé. Mm -hmm. c'est quelqu'un vraiment que je salue ah, et que je respecte. Guy Marius Sagna il s'est battu pour le mhm. Sénégal. donc ci noonu la sama diggante ak artisan yi euh, jógee. ba tey ji ñu ngi xeex jóge guñ fa nag. Euh, parce que bañ demee ba lijjanti loolu ba pare. Mhm. dama ne gars yi que man vous savez man je suis militaire. Mhm. la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer. dama ne gars yi comme léegi problème bi réglé nañ ko. Mhm. léegi dañuy attaquer gars yi na ma comment ma ne dañuy uti avocat. ñu attaquer euh, abonam bi. oui ñu dem jël avocat maître Diop. Baba Diop que Dieu salue sa Baba passage. Baba on a été ensemble à la faculté de droit. voilà ñu dem jël actuellement nii au moment où je vous parle. dossier mi ngi mi ngi tribunal. c'est euh, euh, vraiment on ba bat avec les moyens que nous avons mais l'État jàppale wuñu te vous savez a Paasan. Mhm. nous nous jouons un rôle de tampon. Mhm. entre l'État et mhm. ku ñu dàq ci école bi ci artisan yi ngay ñëw ñu former la. artisanat li mu mën a amul benn benn benn benn secteur bu ko mën a capter ci senegal dëgg la et on est en train de former des gens. man ba ñuy déguerpir sama place en 2019. oui j' avais plus de quatorze ou quinze personnes yoo xam ne fa la xëy fa la yore seen. terrain léegi ñu ngi càq-càq ñii ñu ngi laver oto ñii ñu ngi def courtage ñu ñëw noonu comme ça tasaare ko jël conteneur bi ma defoon bureau yi yóbbu ko dem ñaajoo ba léegi conteneur bi ma lay wax nii mënu ma ci jot. fu ma demee le préfet ñu ne non mënuñoo joxe. Euh, conteneur bu ban at ban at ba. 2019 ba léegi nii jusqu'à présent mu ngi foofu mu ngi foofu xanaa la fa nekk yàqu yàqu na. man xamatuma xamatuma. c'est incroyable j'avais pris un prêt ci banque bi AFEP. def léegi yow prêt bi fay nga. Ah, comment tu vas faire. tu es obligé de la payer avec les moyens que tu as. mais c'est tellement dur. c'est tellement compliqué. sama yaram fi mu dawee Pa Assane. Mhm. ba ma xëy see le lendemain bañ dëgër piré ba pare. ba foofu set wecc ba ma xëy see le lendemain. Mhm. je suis le président. Mhm. ñëpp jàkkaarloog man di ma xool. Hmm. ñëpp jaaxle. ñu ah, président léegi lu ñu def. Mhm. may leen may leen ma tuuti. après je suis parti voir Guy Marius Sagna. oui Guy Marius a appelé la presse ñu def conférence de presse. bañ paree ñu bare autoroute bi boobu Sen TV lañ la fekk yow Assane. dëgg la dañoo baare autoroute bi dox ba Sen TV. dëgg la. après préfet bi di ma woo commissaire bi di ma woo non on va gérer la situation kon donc ñoom loolu lañu ragal ku baaree xale ñu ñëw ñu tegaat ñu fa à à titre précaire révocable. waaw ah. ba nag ñu ngi fa nekk. xam naa ne su ma defee émission bi. yéen a ngi suba ba. mais je je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. da ngay da ngay ragal boo ñu. ñu ñëw yëkkatiwaat yëkkatiwaat fa. mais bu ñu fa yëkkatiwaatee tamit on va se battre contre eux on va dénoncer l'injustice qui se passe dans ce pays là. alors man man au-delà c'est vrai que tous les jours li ngay expliquer nii à chaque fois que ñu li li moo tax à la limite c'est bien ñu dalal ay nit yoo xam ne dund nañu ce qui se passe ñu wax ko mm-hmm. nous on le sait mm-hmm. on le dit mais buñ ko waxee nii mm-hmm. du am illustration par contre comme mel ni yow baa ko waxee nit ñi dinañ ne mais yow lii nan la mën a amee mais man li ma jaaxal d'accord xeex politique am na mais mais à la limite état bi boppam lay xeex. Mm-hmm. au vu de li nga ni l' état qui damay créer ay emploi dama bëgg nit ñi jeunes yi liggéey dama bëgg nangam nangam mais moom mu ngi auto def autodestruction. Mm-hmm. en vous combattant yéen pensant que da ngeen bokk ci parti wala da ngeen bokk fenn. Mm-hmm. ça vous ça vous fait quoi loolu ce sentiment. mais ça nous fait mal ça parce que tey ji imaginer tey nga am quatorze quinze fa la ma paate. waaw parce que dafa bokk ci Ousmane Sonko ñu ñëw rajo xel léppam. des jeunes yi nga xamante ni ñu ngi fan lañ jëm. daaneel parking bi mbëkk bi la ñuy dem dañuy dem mbëkk yi. moo tax may la déguerpissement mooy facteur bi gën a yokk immigration clandestine. te kenn du ko wax kenn du ko wax. Pa Assane ah li xew ci réew mi kenn mënu ko wax. xeebuñu dara donc Samuel il est contre le pouvoir on va le détruire nit yàlla moo ko mën a détruire. Mm-hmm. doomu aadama moo mën a détruire doomu aadama. Mm-hmm. man chaque jour bu ñu la waxee may leen je les attends de pied ferme. mais mhm. dañoo dem ba installer benn peur ci boppu sénégalais yi. Mhm. da ngay wax sax sa famille nan la noo bul wax noo bul def nii pour génnal ci li nga nekk mais ñun ñëpp bu ñu raxasoo génn ci liñ nekk mais ñii kon ñu rey ñu. doy na doy doy doy na waay doy doy na waar on va se battre avec les moyens qu'on a ba jëlee fi li fi nekk indi fi lu gën.